lima reng mak am senang hati kalo ki mai kan ada sampai ada ada ada sampai ada ala aja mai ife kalo ngai war wali ya ah putra apa pur pur lan pur ada larasah. wah pur nuri pur nuri biar mana me ada biko kamu di apa awal ah ada sampai ada ada sampai ada mau ngai rasmi ah kayak gini ada sampai ada wala champion Alaaji Mbay gis nga bu bu mbër day am métier waay ñu seeraan nu muy liggéeyee ñu seeraan nu muy liggéeyee mbër day am métier bravo Alaaji mbër day am métier gis nga fay na contact bi ñu xool ban ban après lu muy def Alaaji Mbay ñu xool après lu muy def mbër day am métier mbër day am métier neena auto Ama bal lay lay lay lay raxas ni nga jël na omo bi ah Alaaji Mbay Alaaji Mbay félicitations. waaw ah, mais il faut travailler yaa ma gën a xam. bien travailler. amul amul amul métier bu bu bu bu bon. y' a pas de sous métier. y' a pas de sous métier comme on dit. Ah, jaajëf waay Alaaji Alaaji ngi ni ñu koy topp de. raxas na deuxième pono bi pono kanam yi lay raxas. waaw bopp la jigéen ñi. ah amaa ngi ne di woote téléphone. si la nee. amaa ngi ne. amaa ngi ne de. waaw amaa ngi ne. faut travailler. grand la nga yox si Alaaji Mbay. Alaaji Mbay. waaw. waaw. y a yàlla may ko carrière pour rafet ndax moom. waaw ça fait plus de 15 ans ma ak moom. yéen ñaar. mais wax dëgg yàlla li ma koy ñaanal mooy champion boo xam ne àdduna yëpp dañ koy dégg. dëgg la dëgg la amiin. ak teraanga joo xam ne nee na nga ñaanal ko entreprise bu mag a mag. képp kuy dund ci àdduna. <laughs> Ah. xaj ci ci ñaxam. dëgg la di jëriñu ci ñaxam. dëgg la loolu rek laa koy ñaanal jàmm. jàmm ak salaam nit ku amee jàmm ci àdduna rek. Ah. defe naa mën naa am lépp li ko li ko dese fii. dëgg la dëgg la ah ñu xool alaaji may nga ba léegi moom ci liggéey bi. mais alaaji may raxas oto ñaata temps lay jël. maximum vingt cinq minutes. ah ah d' accord Lava am na am na am na morning gaay comme. non dëkk bi amal loo dundee rek. ah mais comme waxal secret bi nag am na amul am na xaalis mais mais lu tax mu sama comme di dee deelu. amal amal loo dundee rek. ah il faut ñu si jàpp ah. ah, wax kon nag su ma fa andi woon sama oto pour raxas ko ñaata ñaata laay fay. boo ñëwee doo fay. non non mais dama bëgg xam prix pour gars yi ñëw fii. yow boo ñëwee doo fay. mais raxas oto ñaata lañ par par oto. oto oto comme 4x4 bii tey boo ko doon raxasee ñaata la bii. waaw ah, mën nga ko raxasee ay 2500. 2500 ah 2500 ñaata yoon journée bi ñaata ñaata oto nga siy am. wala saa dépend rek journée bi ñaata ngay wàccaale. journée bi bu am ay douze oto quinze. quinze oto. waaw ah. comme bi nii day day day neex de fête bi nii. waaw dimanche moo gën a kii moo gën a kii. dimanche bi hmm. gars yi ah, nii. jax quoi. Ah. moo tax gars yi duñ la gis léegi làmb ji dimanche lu bari de. non dimanche ñëw làmb ji de. waaw ñëw waaw mais damay raxas ba 4 heures doog a dem. waaw hmm. de musculation laa ko ah ah gars yi de musculation la ko bëgg a def. sama waa la de. yow ñaata employé nga am. ma ne ñaata employé nga am. ma 10 employés. Euh, liggéey bi nu muy deme waaw ah, dañuy liggéey ne ko patron bu metti de. non non fii amul patron de. waaw. Ah. non non. ah. Oh, jox ñu bëgg mu naan. kay xanaa sama waay ngay jox mu naan ngay mu filmé. waaye ngi bomb de. waaye ngi bomb. mais Ama. Ama looy wax ci sama Ama looy wax ci ama lan nga wax si Alaaji Mbay ñu fekk ko fii si muy Joob xam nga Dóor waar. non Alaaji Mbay ba mu juddoo la ah. eh, koy ñaanal yàlla borom defal jàmm. dëgg la moom doomu Pikine la. waaw dafa war a am fii lu nekk biir Pikine. Ah. wax dëgg yàlla. dëgg la waaw ko ñëpp ñëw jàppale. ñëpp mais eh, ah. eh, moom doomu Pikine la. kon mbër dafa war am métier. waaw moom moom mooy loolu. mooy loolu moom mooy lépp wax dëgg yàlla. lu mu mën am si àddinaam yëpp. Ah. daa ñëw investir ko fii. dëgg la ah. boo bañ a ñi ayab la rek utal liggéey. waaw dama gudd na métier ut na liggéeyam. bu ko neexoon nag di wër ci dëkk bi ñaanaat def lépp. Ah. waaye def na lu ko jox yàlla gën a dégg. Hmm. moom la ñu investir fii di ko ñaanal yàlla suñu borom defal jàmm rek. grand la nga wax si El Hadj Mbaye ñu fekk muy job xam nga. tur bi nan la. Pape Serigne. Pape Serigne waaw. ku am jom ngi nii. waaw waaw ku bëgg bigit uh-huh. boo xam ne xaarul kenn si benn. dëgg la waaw liggéey rek moom moo ko ñor. Uh-huh. waaw di ko ñaanal li mu sumb nii suñu borom defal ko jàmm rek. waaw waaw gis seen bopp. Uh-huh. parce que nitu nit ñi la quoi nitu nit ñi la. franchement d'accord billaahi mais Ama est-ce que boo àndee bi sax da ko may di nga fay nag. bon <laughs> ah damay léegi léegi na sa 2500. léegi na sa 2500 quoi. waaw ah tey dara damay fay. Ah, <laughs> donc alaaji alaaji sama copain nee na gaañ xëy na de moom day bay kii day bomb lu bari day bomb lu bari ci bu la fay da ngay wàcc da ngay wàcc da ngay wàcc ci bi li ngay soufflé nii li ngay soufflé waaw. yëpp kii baa ngi ne la yëpp kii baa ngi ne Babacar. waaw ah, a ngi ne mooy chef d'équipe bi yow la. Ah, a ngi nii. ah représentant waaw. Euh, maanaam capitaine d'équipe capitaine. Thio tax nga ah Dóor waar rek lan ngay wax ci Alaaji Mbay mu ñëw ubbi lii entreprise bu mel nii lan nga ciy wax Alaaji Mbay moom war naa mën mooy eau de eau de lavage te ne eau de eau de musculation. Ah. parce que ñaar yooyu ci li ñuy yëngu. waxaat ko waxaat ko. eau de eau de lavage eau de eau de musculation fitness. Ah. moo nekk nii. moo nekk nii nekk quoi bëgg waa. maire ah. bi mm. di jàppale ñu fii. waaw soxla nañ seen soutien bu baax daal. parce que ay doom Pikine lañ. Mm. fii lañ xam. mais mais ku wax lavage wax ndox ndox mi facture bi dinañ cher. waaw ndox mi dañ koy bënn quoi forage lay nekk. ah forage lay nekk. waaw dañ koy bënn parce que Sénégal léegi dañoo développé. waaw. Sénégal léegi. waaw ah. dañoo am ay ay ay ay ay ay pompes. waaw ay pompes yoo xamante ne nii boo bë boo gasee ay profondeur ay. Hmm. du mat sax six mètres. waaw parce que dafa jege ndox. waaw napp bi da ngay da ngay am ndox quoi. Ah, da ngay am ndox. waaw da ngay am ndox waaw ah, d'accord. parce que fii ngay gis ñëpp ay ay ndox la woon. ndox la non fii xam naa fii ñëpp fii ñaay la woon. waaw bañ nekkee xale. dëgg la xam nga. Hmm. loolu la quoi. mais ba yow tamit ñu ngi lay kontaan ci yow bu baax ah. non yow ñoo far. waaw parce que yow. mun naa ne yaay capitaine journaliste yi. <laughs> waaw yow lamb dala war a fay. dëgg la yàlla baax na ndax lamb. dëgg la dëgg la ak sëñ Bamba. waaw dëgg la ndax lamb. ñun fii la ñu lépp fekk. dëgg la donte ay xale lañ. Ah. mais lu bëri dañ koy fàttaliku. dëgg la di la ñaanal yàlla mujj bu rafet. amiin amiin. li nga ci séntu tamit. Ah. yàlla jàppale la ci ba am lépp. dëgg la ah, waaw parce que loolu rek mooy àdduna. loolu alors euh, après ay promoteur yu la seet si. am naa ne mer mer nga fanaanoo de wala. pour l'instant damay laabe moom. ah da ngay laabe. waaw pour l'instant damay laabe. da ngay daw géew bi ba si kanam. mais depuis boobu sa copain ngi wax rek. sa copain bi la daan ba léegi mu ngi wax rek. non daf ma daan ma daan ko. dañoo daanal. da ngeen daanal. waaw. kon da ngeen war a def la bel. non mais tey gars yi léegi dañ gars yi dañ ne ma. moom ah. ko bëree ngeen nga daan ko. waaw ngeen bëriwaat mu daan la. waaw léegi final bay def. yow léegi laabel ko si kanam. waaw après que final. Ah, mais loxo bi moo ngi tane. non tànk bi la woon. tànk bi moo ngi tane. waaw mu ngi tane. waaw ah, mu ngi tane bu baax quoi. kon yaa ngi ci finition bi nii. waaw maa ngi finition la nii laay ah. ah, na day wàccee omo bi. nga oto bi xam nga bu muy dugg fii sànq melul woon nii. ama ama da nga war a yokk sa loxo. oto bi bu muy dugg fii sànq melul woon nii. ah. gars yi nañ ko loxo de. ama gars yi nañ la loxo. alaaji mbay toujours en œuvre nii la de mais alaaji mbay xam nga lu ma gisul ay tenue sa gars yi sol tenue ana ana tenue yi nag génneel tenue dañ koy yóbbu fóot <laughs> waaw waaw eh, jox ko ataaya bi eh, alaaji mbay ngi laaj ataaya de gis nga oto bi melul woon nii bu muy ñëw fii sànq waaw gis nga de loxati na ko waaw juga kan. Kira tu aku juga dengan TikTok mana. Nah, ala mainan, ala memang tak mainan. Alhamdulillah. Ayuai. Enggak deh. Beri udah lemme cek. bëri uti leen métier bu leen miise wu rek si làmb mbëri uti leen métier la ngay lancé ci lolu mbëri mbeur un mbeur un métier. waaw parce que làmb yàggul. lamb carrière bi 45 ans la yem. waaw xaw 46 ans. waaw ci 45 ans ñene jaay ci dig sa digg ndaw. waaw kon bu fekkee boole woo won ak liggéey. waaw dañu rafañ jort rek quoi. deug la parce que arrivé yalla moko ko yor. waaw mais yow jàmm da ngay jëm da ngay jëm mën nga baña am benn coono nga arrivé. Mm-hmm. am lépp am lépp. waaw mën nga daj ay coono bay bëgg a dee. waaw say soxla du fay. dëgg la waaw mais. rafet njort si kuy teel a xëy di ko di quoi. waaw parce que yaakaar nañu foofu lay tane. Mm-hmm. làmb euh, passion la. waaw te sport la. Uh-huh. sport si jaamu yàlla la boobu. dëgg la mais teewul da nga koy booleeg dara quoi. dara dëgg la waaw loolu la. dëgg la donc moo ngi si finition yi. loolu la rek. moo ngi wàccee xomo bi. parce que dëkk bi dafa bëri ay action ah. ah. programme. Ah. ah. sama waay jël na. Ah, nu mu sax. coo coo la capitaine capitaine jël na. waaw jël na. waaw. am na nga def Ousmane ziar la. Ousmane da nga seet de lu xew. ah. day mu mu nga ko jox demande d'explication. ah. Ah, électricien yi nga xamante ni Pikine moom lañ am. moom ñoo yarandoo. waaw taxawal moom. waaw te ku ne xam na ne ndox dafa sew. waaw comme booy raxas oto yi. waaw ñaata yeneen saa ndox yi dugg koo xamante ni yow yabaloo leen fa. waaw léegi moom da ciy am wàll. waaw ah. comprendre nga. moom lépp loo xamante ni fii du garage la garage la ni fële. Ah. a jàng métier. di ko bëgg bari. Eh? ñu ko soxlaa. day bàyyi lépp ñëw defal ñu lu ñu bëgg. comprendre nga. ñu koy ñaanal moom tamit li bëgg si métier bi yàlla defal ko ko quoi. may gërëm ñi nga xamante ne ñoo si bu baax. muy kan. muy sama nijaay Aliou Ndiaw Niang. Aliou Ndiaw Niang sama waay ngi lay. sama papa sama papa Ndiogu Mbaye. sa papa Ndiogu Mbaye. gërëm sama nijaay Issa bu baax quoi. sa nijaay Issa bu koy gërëm. waaw gërëm bu baax ki nga xamante ne mooy Prince Koumé. Prince Koumé. waaw kooku liggéey la bëgg. Uh-huh. waaw booy liggéey da lay jàppale. parce que dafa bëgg liggéey. Mm-hmm. un travailleur. un travailleur aime un travailleur. di gërëm ki nga xamante ne mooy xaarim Diagne mooy asim waaw sama xarit sama doomu nday xam nga di gërëm bu baax Serigne Diop borom technopole borom moto bi hmm. moom ñëpp ko bëgg dëgg la amul noonu hmm. am na kattan macha allah mais day nuyoo di baale te loolu dafa jafe kii gars yi nga xamante ne non waaw. moo loolu moog Amady nekkoon nañu ay. ay jumeaux lañ dañ leen di jaawale sax. Ah. waaw di gërëm Xaarim Diagne bu baax. Ah. di gërëm Pénès Koumé. Ah. di gërëm waa Kër Tabax mi di service gauche droite. Ndiogu Gueye. Hmm. di gërëm Mbacke Kassé. waaw Xaddafi. Hmm. di gërëm Zano. Hmm. sama nijaay. di gërëm lamin xam nga Lamine Samba. waaw di gërëm. xadaf maa ngi waxoon naa ko. di gërëm ñëpp ñi nga xamante nañ ciy jàpp. waaw mais location wala yaa ko moom. non fii kenn moomu ko. waaw boo déggee man la moomu ko mooy yow mii ci nga bokk. waaw xam non bi da ngay fay mairie na muy demee. waaw mairie faa nga fay leen. waaw waaw mairie faa nga fay leen. waaw mais projet bi commencé na hmm. jàppale ñu bu uh-huh. uh-huh. bi fi nekk muy. mais est-ce que soog nga sa daal seeti Timbo wala maire maire commune bi.

Pikine mhm. euh, seen fleur laa fi rek waaw comprendre nga mhm. jàppe wuñ ma sax mbër dëgg la dañ ma jàppee koo dama la comprendre nga mhm. ci anam yëpp xam ñaanal sama si Aziz Abo Mbacke yàlla bàyyi fi yàlla na ko defal jàmm bu baax baax yokk ko comprendre nga di ñaanal ñëpp ñoo xamante ne ngi ñëw fii di raxas yàlla na oto yi di tilim di tilim yi di tilim di tilim di raxas ci waaw ci

alaaji du ma dugg ci biir ak ak du ma wane ci biir li nekk si oto bi. wala bu dara nekkul ci ah. Ah, xam nga boromam newu fi. ah, ah am na am na client. ma xool nu wax ak client bi. ñu xool alaaji may nu wax ak client bi am na client. am na client. am na client. xaaral Ousmane na am na am na direct nag lañ ko am. en direct nee ko bien. Alaaji Mbay nee na ko bien. bien na ko bien alaaji may nee na ko violent c'est bon oui c'est bon c'est magnifique madame bi yëgal na vitre yi xaaral ñu laaj madame madame madame na madame ça va alaaji jërëjëf amal jàmm yow tamit yal na ànd bu gën a màgg gën a kawe dëgg la ñoo far jërëjëf jërëjëf gars yi équipe bi mënul taxaw ni ma amoon photo équipe gars yëpp ñëpp taxaw waaw gars yi taxaw leen ma am équipe bi yëpp. grand kaay taxaw ni équipe bi. waaye tamit dóor kat la de waaye moo moo moo tardé woon dégg nga lii lay dóoree. la El Capo kii xanaa secrétaire bi la. eh secrétaire ah. waaw jël naa ko. ah. kenn dootul baasaat. ah. <laughs> ok léegi sama gars yi jërëjëf. merci.